jërëjëf mbokk yi way ànd ak ñun dañu seetaan boole ci ñu déglu xam ngeen ko xàmmee ngeen ko muy siddeem moom la ñu fas yéene wax njariñ yu ma am képp koo xam ne daanaka dangay am jafe-jafe sa put mel ni luy tàng del faratal di ma ci dem ki nga xam ne dënn wi ci boppam dafay tàng del faratal di ma ci dem ki nga xam ne sawam dafay tàng del faratal di ma ci dem ki nga xam ne dafay faratal di am constipation del di ma ci dem moo tax fële ca Chine ñoom xam-xam ñu ci am moo tax dañoo jël dém bi wal ko def ko def ko li nga xam ne moo di jus di ko jox ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe lu jëm ci wàllu ñàkk nelaw soo demee tamit sa Nigéria ñoom solo bi ñu xam dem moo tax dañu jël reenu dem gi bantu déem gi la ñu jël baxal ko di ko sangee ñi nga xam ne dañu am jafe lu jëm ci wàllum xel di leen ko sëlëmee boole ci di leen ko sangee kon xam ngeen ne njëriñ wi am na ci solo kon képp koo xam ne yaa ngi déglu gënal fonk déem di ko macc wala di ko def ji dina la dimbali ci wàllu inflammation. jërëjëf mbokk yi way ànd ak ñu dañu seetaan boole ci di ñu déglu xam ngeen ko xàmmee ngeen ko muy si moom la ñu fas yéene wax njëriñ yu ma am